xale bu jigéen bi damaa nëbb kanamam mais xale bu jigéen bu jongoma la jigéen dàq ko ku rafet macha allah mu woo ma expliquer ma problème bi nettali nag si laa mi borom la dàkke moo tax dinaa ko woo WhatsApp mu dugg mu expliquer sénégalais yi lan moo ko arrivé lu ko arrivé mooy dafa am borom këram ñuy dund des années et des années ba am si ay doom foog naa ñett doom walla ñeent doom mais daal doy na waar boroom kër ga utiliser na ko am ak moom ay doom mais ndeke musu ko bëgg musu ko nopp te ba léegi nag divorce nañu nag yàgg na mais ba nii nii nii ñëw dëkk si kër parfois ku góor ki ñëw di ko jéem a cokkaas pour tëddee ko moom mu bañ mu ne ko sëy amatu fi mais nag ñoo bokk benn kër rawatina nag jamono ji xale bu góor bi mooy fay kër yi si problème boobu nag doy na waar beneen bi benn xale bu jigéen sénégalaise la contacté na ma nee na da doon sëy mu am jëkkëram jëkkër ji mu ngi France foog na mu dem mu sëy ji kër xale bu góor bi mais si saal lay fanaan jékki-jékki ñu divorce ça fait xaw ma ñaata at jëkkër ji joxu ko fukki dërëm toppatoowul doomam muy tamit mbir mu yéeme mbir mu doy waar kooku dina dugg expliquer loolu tamit ci toroxal jigéen la bokk jigéen boo ko taqee am moom doom nga fase ko bu la neexee sax xale bu jigéen bu ko jox dërëm mais doom bi ngeen am sa doom la dafa am lu la war si doom bi mooy dépense xale bi mais xale yu góor Sénégal ñu bari xamuñu loolu et c'est triste léegi loolu day pousser xale bu jigéen bi boo amul mu jëndalee couche doomam wala meew mu dem sax jaay ji boppam pour dundal xale bi te jamono jooju papa xale bi mu ngi en Europe sa doom ëllëg màgg tekki nga bëgg ñëw naan kii sama doom la c'est un footballeur sama doom la il est le mbalaxmaan ngay xëccoo ak yaay bëri na Sénégal yéen a ngi si dëkk seen bët donc allo. disconnected. sista yaa ngi si jàmm. alhamdulilah léegi maa ngi def bul tuf bi rek léegi yow dama bëgg nga commencé rek expliquer sénégalais yépp fu sa problème commencé ba tey jii fu mu toll kon man dama lay déglu rek man yow nekkal di wax rek. connected. doom yépp nag euh, césarienne laa leen amee ma dund nag euh, lu métti loo xamante nii mais sunu borom subhanahu wa taala sang ma mbalaan moo xamante ne ku waxul. li nga xam ne moom la moom lay dund munoo koo xam déedéet loolu mayu yàlla suñu boroom la du sama kàttan sama mën waaye yàlla suñu borom dafa ànd ak kuy mun ma dund lu metti dund lu tar nag ci sëy bi fasuma ko dara lu metti ci àdduna xooluma ci moom alal wala dara ba may dugg nag ci moom situation mooma dugaloon ci moom ñu baree bari nag euh, ñu ma xam ne dala daf ma atteindre mystiquement ak ma ma mel nag moment boobu muy may dugg ci man boobu ku ma ñëpp ba bëgg ba fii may toog di wax di divorce bi amee mais dama ragal góor ndax moom bi ma sëyeeg moom nag euh, ba suñu jonn yàlla tey benn avancement am ci mais ragal divorce laa defoon bi ma demee nag ba ma tiit ragal situation oblige mu metti suma papa sama yaay laa am wax dëgg yàlla mu nekk mag bëgg njaboot yërëm njaboot chaque jour mu ne muñal rek moom muñal bi yëpp kenn bëggul sa doom di souffrir mais muñal bi yëpp li ko waral mooy dafa xam ni adduna bi metti na te metti na ci ñun ma toog waaye ci diiraa li ma sëy bi di metti torop saa yu ma yeewoo ba dama naan day changé wala des fois ma ne peut-être dinaa am na nga xam ne maa leen tane ma toogaat nii ma jàppoo ko noonu chaque jour su ma su ma limee ba jaaxle sama xol fees ma jàpp julli jël yàlla tënk ko samay loxo tàllal ko ko mu may ma courage bi nag may continuer ba yàlla dogal ñu toog ba benn instant nag affaire yi gën a tar ma def choc bi ma defe choc ñu woo ko ne ko yow yaay kër bu décroché dégg loolu day coupé mu wàcc sama doom ne ko ah xool sama yaay de mu ne sama yoon nekk ci ma te sama nit di ko dégg guddi jot ak sama loxo bi ni ko ñawee mu métti douleur bu métti mu jël loxoom ci kum yor métti toute une journée weeru koor sama yaay ne ma naa la say ma ne ko wóor naa bu heure bi yaay bàyyi ma eggale rek sama koor ma eggale boobu sama ko damaa defe ni rek lu ma rëcc ci jaamu yàlla rek day gën a métti samay jafe-jafe day métti ma concentré wu rek ci sama vie samay doom sama yaay ak yàlla sunu borom ma continuer loolu ba jour boobu mu ñëw ma tëdd guddi mu ñëw di ma teg loxo ma ne ko yow yaa nekk depuis ba tey woo la samay ordonnance mu ne ma dañ ko doon dajalaat ko jënd ndax fekk ma ni ma tëddee ak ñaw bi ñaw sama loxo ma ak sama loxo nga ñëw di ma di ndax lan mu ne ma nangam taanaan ndayam fële ma daal di tëdd jooy jug julli ñaari rakk daal di tuub tudd yàlla nag daal di ñëwaat tëdd moom mu jug tëdd ci saal bi mu jug ko pare naa tey laa suur mu ne ma munoo ko ndax amoo foo jëm effectivement wax boobu nekk lu dëgg te toroxal bi yàgg na mais dëgg la parce que bugguma def lu mu wax ma loolu foofu sama àdduna nag tukki ku def césarienne quatre fois amatuma benn kàttan ma dugg di jaayantu yi sew demul parce que damay toppatoo samay doom ñuy jàngi di leen bëgg di leen dundal xalaatu tour su li nga xamante ne joxe doomu day calculer doom yi kee comme kee gaañu la day calculer ku ci nekk mu xool mu jël mille franc mille franc jox la ma sax kenn xamu ko nag kenn xamu ko kenn ko xam c'est la première fois même sama yaay nag mooy sama xarit dama Sénégal je suis mais dama ragal sénégalais dama leen ragal ma ànd nag ak ngor toog waroon na mën a doxee dina déedéet jour boobu la divorce am mais ci kaw divorce boobu toogaan naa six ans ba nekk ak moom ci benn ba tey may souffrir ba tey may souffrir ak moom bu ñu dëkk ci kër borom kër gi ñoom dañuy génn ñu génn parce que mënuma engagé wu fay lu yaas bëgguma def lu bon gisuma sa papa dégguma ko ma génn bu ma taxoo amul situation ba tey mu nekkaat ci ma nekk mu toppaat ma mais ci kaw toppaat boobu mu ma toppaat ci six yi ba tey du lekk du dara man xooluma mbubb bu cher xooluma dara na samay doom nekk en bonne santé di lekk des fois su ma xiifee sax damay ree pour woon sama doom yi ne dara méttiwu ma ak lu mu mën di xew rek damay damay damay wane ni si rien n'était di def ay gestes def ay façon yoo xam ne yàlla suñu borom mu may tiim xam naa dinañ ndeysaan kii moo bari sax waaye ba tey rek ma ne du ma ci daal ndax comme maa ngi jaamu yàlla te du def lu bon damay gis ci divorce bi nii divorcé naa dara topp ma ndax njaaloo ma def ma lu bon defuma lu bon waxuma lu bon aw ma xarit sama yaay laa am mooy sama xarit mooy sama lépp lii def soo gisee ma accepté moom mu ñëw parce que xool na ni ay doomam la man comprendre ma mu toppaa ma te doyewuma dara taat rek la ma doon doy sama sëy moom sax daan la ndax su ma masaanal ak sama bopp damay ragal la bañ ndax dama doon xalaat naa ñu naan sa doom yi wala nangam ma accepté mais ak anam mu metti laa ko daan di saa moom mu metti trop su ma xëyee mu metti amul lenn loo xam ne dina ko taxaw seq ko ak man lépp may xoola su ma xoolee sama yaari yërëm ko ndax situation amu nu may def ma dëkkaat fii encore mu defaat noonu léegi day bàyyi bu kër gi weete mu ñëw mu ñëw ne ma te puusal ni yow ma ne puus pour lan ma ne ko eh ma xam nga lan la bu ma fontoo man du ma jigéen ju xam nga ko ba may xale nga ma xam yaa ma jël may xale bu tuuti ay waroo toog ba heure bi nga saa yu xale yi kër gi mu ñëw ne ma dama laa soxla woon bu ko rejeté jour boobu ay doomam bu ouverture sama doom yaa ay doom yëpp seen jàngu yàqu na mu des kenn ki dama dama dama forcé taxaw taxaw taxaw taxaw sama digg ba sama doom dem jàngi for li boo nee nii sax fourniture mu ne xalaatuma ko ma sëgg rek léegi nag situation bi ma nekk ma mu jeex parce que ay menaces ma ki am bi mu ñëwee ne ma dama léegi bu ma la siifee ma ne ko ma woo police mu ne ma wóor police ma ne ko mu ne ma walla léegi kon nga rey ma ma rey la ma ne ko man su ma xoolee ci ñee ci prison bi seen àdduna seen doom jaratul dara man ma rey la léegi man ma dem dugg ci kaso bi samay njaboot gi xamuñu kenn man xam samay njaboot xamuñu vacance saa yu gëstu lañ may gis mu ne muy war man carrément kon rey ma wala ma rey la di génne ni ma ne ma rey ma wala ma rey la ma woo sama doom boo sama doom bi li may dund bi mooy chantage bi mooy aw nu may def du yaay maanaam sama àdduna yaay laa ci am yaay kese léegi moom chantage bi may def mooy chantage bi mooy moom man ma ragal parce que dama ne bu demee du ma amati fay fii ma dëkk te fii contrat sama tur moo man problème boobu laa am te dama bëgg mu génn ci sama àdduna sinon day yàq sama àdduna sama doom yi man rek la xam sama doom man rek la xam dama dem sama sama souffrance bi dafa yàgg dafa yàgg de bi ma nekkee xale ko tey suma yaay rek moom laa mën a waxal am bànneex te suma yaay ñaanal ma yow kali xam nga ko sama yaay daf mais yaay sama yaay sax dama ne ma da ngay jenge mais laal suuf parce que am na toll naa moment boo xam ne sama yaay gisul woon kenn man rek la gis ma jàkkaarloo moom rek bugguma mu jooy buggu dara naqari ko ba na mu gore lool loo wax mu ne ma da ngay mais dund bi bu dee am na fenn kenn waratu ko dund ci àdduna ñun du baax jigéen du ko jur ñun ñu jur wàllu yu ñun la fa baax ñun la mënoon naa bañ a egsi fii parce que yoonu bon ñëpp xam ne ko waaye bugguma bon bugguma bon ma def loo xam ne neexul yàlla xalaatuma ko dèjà divorcé na mi dama dem ba góor bu ma neex dama naa dam damay weer ma xool bi day métti dama yàq sama xol jigéen laa boo xam ne boo ma xoolee danga may bëgg mais dafa dem ba yàq sama àdduna sama bëgg bi day jaxasoo balaa maa nelaw damay naan garab damay naan garab muy jigi sama yaay ma lii baaxul ma ne ko su ma ko dama amul lenn lu métti loo xam ne tooñ ñaa ko yàlla suñu borom li may wax mën naa ko yaa koy muñ léegi nii laa doon naaf la yaar xuraanu karim sama njaboot gi ma amul ku dul ñoom yàlla seere na ci li may wax wallahi azim li may muñ ay ati ati at génn góor rek ku tekkiwul dara seetaan ma ci lépp seetaan ma ci sama njaboot ma nara topp lii ba sànq sama bopp te defuma ñaaw xol bu rafet laa yor ku mën a yërëm ku mën a yërëm laa koo te ne yéenuma kenn lu bon mais góor dama xoolee ci li am bëri ci yéen xoolaat ñeneen a ñeneen xalaataat kaso bee du ma def nit lu bon man du ma gaj seen man ba ñaaw musuma xeex man du ma xuloo lu ma am jàmm ma ko gën a mais pourquoi man may souffrir ba góor di ma tëgg xalaat dama ko woon ci mu forcé ma dëkk ak moom ci benn kër te dëkk bi gënalu ma mais damaa amul pexe pexe laa amul situation oblige ba pare mu bëgg mu dem te xam naa ni bu demul ne lii fi muy nekk fi muy li jur mooy di ngeen jékki-jékki rek di dugal ma ni ma rib wala ngeen dugal ma ni ma kii rey na wala dara te ñaanuma ko yàlla sama doom yi xalaatuma ñuy am yaay joo xamante ne ci àdduna dogu naa ko ci yàlla yonent beeg seex naa seexul xaddim mu ma yaakaar samay doom bëgg ma bëgg wayu bii ma xamul man tamit yoon bi leneen dañ le proposé sa ngay dem ay liggéey yoo xam ne mais sama santé boo defee césarienne amatuma doole bi leneen yow mën a dugg soo ko commencé après mooy loolu say doom ngay taxaw waat pour commencé waat a zéro te damay jomb damay rus en tant que jigéen te lu bari bari ko yeewoo lu dootoo yeewoo bëgguma ba ëllëg ma rus may doom di ma mere samay doom rek laa sóoraale ba heure bi métti na ne man waaw léegi léegi sista sista sista naanal ndox di ñëw kër gi di fa si mais day fanaan saal kii fanaan mais day jékki-jékki ñëw ne day bëgg tëdd xale bu jigéen bi xale bu jigéen ne doo tëdd man parce que danoo divorce parce que xale bu jigéen moom nee xolam attanatul mu sëy kii à vie su lu mu jot a wax léegi xale bu góor bi day ñëw di ko forcer souvent di ko métital pour di tëdd moom mu mét mu bañ jafe-jafe yooyu lay dund léegi nag après di ngeen dugg pour wax seen xalaat ñu xool tamit moom nuñ koy dimbalee parce que xam naa ni comme xale bu góor bi mooy fay kër gi moom mënul génnee xale bu góor bi kër gi mais mais dégg naa contrat bi sax ci turam la nekk mais bu xale bu góor bi génnee kër gi kuy fay kër gi kuy fay kër gi moo tax foog ñu xool nuñ ko dimbalee nag xool nu ñuy xool pour fay kër gi parce que moom it loxoom jotul ginnaaw bu ko defee moom bu amee connaissance wala ku ko dimbali fu mu nekk moom dina mën a jóge fu mu nekk ak góor ki ñëw dëkk xool yi nag yaatu nañu souvent nga gis émigré bu nekk bitim réew am këram sax bu mu tëj kenn nekku fa mën na fël si laay bi laaj numéro am daal di ko ne ñëwal dëkk sama kër béréb sàngam ak say doom ba yàlla suturaal la day am parce que sénégalais am na xol boobu elle travaille pas peut-être n'a pas les moyens pour travailler elle travaille pas parce que bu doon liggéey dina am lu mu fay këram mais je pense pas que mu ngi liggéey moo tax ma bëgg ko jëlaat ginnaaw mu naa ne ndox mu expliquer ba expliquer papa ji après ma daal di leen jël ngeen xool lan ngeen di koy euh, parce que euh, kii la bëgg euh, comment dirais-je solution la bëgg solution bi nag yaakaar naa ni sénégalais yi di ngeen ko mën a dimbali solution loolu rek la soxla ñu xool nuñ koy dimbalee mu am solution balaa leneen nag di ami wax na problème am de waaw wax na problème am nag ñu xool nuñ ko dimbalee pour problème am bi régler waaw léegi maa ngi koy jalaat ak bultu fi boo ko doon laaj du dégg mais nii nii da ngeen tapoter rek comme ça je le l'aider waaw après on va voir comment tu vas l'aider euh, Famès merci on veut juste ay nit yoo xam ne pare nañ pour dimbali ko elle habite euh, à Dakar allo waa sister waaw da ngay fas sa jom jooy yi day tax live bi TikTok da koy yàq da koy dagg jooy yi baaxul arrangé xam nañ ne sa xol fees na mais boo nekkee di jooy TikTok di ko kii day mel ni ku xaru wala leneen TikTok day yàq live bi moo tax vie yi mënul yëg. Mm-hmm. waaw am na ñu naan je peux l'aider aussi am na taxaw pour dimbali la. mais da ngay expliquer problème bi. yaa ngi ma doon expliquer sa problème mu waajur. nga ne da leen a sàggane da leen seetaan nu mu demee. waaw. ba yëkkatil yëkkatil kàddu gi bu baax dégguñu la bu baax. man 2006 laa ko gëj a gis. ko gëj a dégg 2006 la gëj a gis sama ji bu góor sama doom waa mu dem ba tey fexe naa dem di laaj ay wala bu ma gisee ku dem dëkk bu mu nekk mat joxe turam ñu ne xam nañ ko bu baax kuñ fi respecté la ku ku ku yàlla baaxal sax ma ne ah bu ma laajee ñu bari ma laajee ma koy dégg. maa ngi koy dégg rek laay wax parce que soo mënul weer sa bopp mënoo ko 2006 su ma ko wooyee ba nii bi ma fexee ma koy gis nii en ligne des fois man na ko capturer profil am ko xool parce que dama koy nam sama sama xarit dama koy nam mais li ma manque énormément li ma boole moo bari dama koy woo du jël du jël te mën naay du ma jël te damaa defe woon ne waajur ak lu mu mën a métti métti ma daan wax lu ma daan wax lu ma daan wax dama doom yëpp yow laa ci gën a bëgg sama yaay na ko oh papi warul woon génn wallaahi warul woon damay jël photom di ko xool ba nii may waxee yow démb rek damay essayé jël toog xëcc sama nekk teg sama xol feesee rek ma jooy. parce bu li nekk sama dënd bu génnul du baax sama doomit maa ngi dégg ñu sa papa lan di leen woo de ah lan xam naa ci lu leer am na kuñ ma boole loon def ni ma dara pour sonn pour sonn kenn di la laaj ngay dem loo am war ko dem di ko def ay ñaan nga julli nga julli tàllal yàlla say loxo saa yu jullee sama rukkoo bu mujj moom rek laa ciy tudd siggee ma ñaan sama yaay saa yu jullee sama rukkoo bu mujj moom rek laa ciy tudd damay taxaw te ne nit damay jàkkaarloog yàlla te dëgg la sax damaa jàkkaarloog yàlla mais damay ñaan parce que bu deewoon sax ma dem di ko ziar di ay lixlaas ndax way jur la mais gisuma ko te mu ngi dund mu mu metti te da ngay dégg ni sax am na ñu bari ñu may dimbali dimanche yi day ñëw ba fii ñu lay woon preuve leer même la nga ree dama naa ah la day liggéeyal yàlla rek noonu la dimbali waatee loolu dara nekku ci ku ma wax lool laa lay wax fekk ne après bu kooku waxee ba pare mu ne te lii la mu am koo xam ne sax may woo pour wax ma mais du ma jël appel boobu parce que damay bañ a dégg loo xamante ne ni dinaa toog deux jours métti sama xool sama yaay danaa ma sama la xoolee rek du ma la sax bëgg a xool sunu ñeenti bët yi tax damaa xam ne da ngay da ngay forcer mais da ngay forcer nekkul ci yow ma ne ko yàlla moo bind lu saa yu ñu jaaxlee dañ jël suñu xel ci moom moo tax damay nëbbatu du ma bëgg sax di jooy di ko nëbb samay doom su ma jooy sama néeg laay dugg teg ko su ma jooyee ba doyal daal naan sama ndox tëdd des fois noonu lay ak sama xiif mais bu ma génnee da nga naan déedéet kii manqué wul dara loolu ngay wax mais sakk yàlla nag lii lépp dafa bokk ci sama destin yàlla bu la bëggee jaamoon da que natt yi nag tax ma metti mooy ba bari ci lu tàng la amul bu sedd dèjà njaboot rek dafa metti ay eh, moom mii may toroxal nii waaye bu fekkoon yàlla woon na ma jamono jooy waaye nag booba doom yi jooy nañu yàlla woon na kii dinaa la booleeg ma waaye di nga ci am njaboot sàngam ma nangu natt bi waaye tamit damay ñaan yàlla ak ku ma mën a ñaanal ñaanal bi de xam ne dinaa toog ci tun journée bi ma jooy léegi léegi yow bu nu bëggee gën a comprendre sa jëkkër bi ngay sëyal kañ ngeen divorce ak lan moo andi divorce bi six ans juróom benn at bi la mu ñëwee di man làmbaatu ma ne ko yow yaa sama loxo bi. ñu tapoté TikTok dina bàyyi live bi léegi kii na ko def na ko tombé léegi live bi waaw léegi nga ne fan la seen seen divorce jógee. ci jour boobu la ma ne sama loxo bi mënu ma koo teg sax nga may jéem a sàkku ndax ragaloon naa. bu njëkk mooy bi nga bi ba nekk si mu ñëw di la. mu tombé weeru koor. sama yaay ñëwoon dogal sa koor ma ne ko déedéet bàyyi rek ma woor yaay ma dem ci la ñëwee di ma teg loxo ma ne ko yow sama loxo bi ak douleur bu boobu maa ak sama loxo bi mu metti jàpp sama xool bi ma xoloo rek mu daan dig ni ma nangam tànnal ndayam daal di jël li muy dem ci saal bi ma dugg fekk ko ci saal bi fekk ma am cadre sëñ Fallou bu ma tegoon boobu kalima dama bëgg sëñ Fallou ma ñëw sama loxo bi metti laa du dóor ci loxo ci foto sëñ Fallou bi di ko sëñ Fallou may ma courage may ma ndëgër laay ma bàyyi kii day yàqu sama àdduna sama àdduna yàqu na alima ñëw daal di julli naa fi na mu tombé du ma ko fàtte mukk nekk deux heures onze du matin wallahi azim jour vendredi du ma ko fàtte mukk nekk sama àdduna ndax ñëpp dama ko natt ndax ci sama xol bi la dugg mu ñëw dem ci saal bi ma ko ne ko yow mu ne ne ko suur naa ba sonn dama mais dafa mel ni lii mu ne soo amoon foo jëm ba tey dem na mais amoo foo jëm imaginer e effectivement loolu moo am ndax su may ànd ak moom ba bii ci lii nii nii dëgg la dëgg la aw ma fu ma jëm aw ma fu yi ma doon def di jaay mais des fois damay jaay mu échoué ndax samay doom sama li may jaay mu leen yor dama leen di bëgg a toppatoo ku jigéen ki ku xaw a mag ki bëgguma mu soxla daraay góor bëgguma xool ci man dama ko bëgg a jàngal muñ. kon am ngeen am ngeen am ngeen am ngeen doomi mag. am nañ ñeenti doom kenn ki dafa gaañu. Oh. xaadim xaadim moo gaañu mais ñett ñëpp mi samay lox mu xam loolu nag loolu la ma loolu ma nii en otage léegi nag xëy na peut-être ma bëgg a téye su ma métti talee ba dee mu sama doom torox ay sama doom yi man rek lañ xam kan yi doom yi xamuñu kenn. sa dem vacance léegi léegi ba ngeen nekkee ngeen tas six ans. juróom benn at seen sëy tas. si diggante bi takkaatuñu sëy bi. déedéet. te yéen a ngi dëkk benn kër. benn léegi mu xëy di la jox dépense. déedéet. jox la dépense su xëyee day xool ñett. ñetti doomam yi lay jox ku nekk mille franc pour man léegi nga xam ne ñoom la compter lool ndéeti ak añ léegi man dafa si génne comprendre nga waaye man fi ma jaar moo gën a métti xiif xiif garaawul kan fi ma jaar moo gën a métti xiif te sama génne kenn du xam ndax damaa xiif amul problème kalima dama bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi ma bokk damaa war a man damaa war a doon muñ kat sama yaay dafa muñ ba pare dafa sonn sama yaay depuis bi ma juree ma xemme li ko di jàng ba tey ci nii laa ko man tamit ma demaat heure bi te pourtant duñu ay nit fu baax lañ bokk duñu ay nit ñu bon sama yaay jabootu jàmbur ko gën a jabootam xel mu rafet mu sell la yor jigéen ju sell la depuis bi ko sama mu sëy fi borom këram gaañu xalaat waxee mu ne xalaatuma loolu man nag sama xol yàqu parce que li nekk sama dënn qualité toute la journée sama point gauche bi day ba ma téye ko dama koy téye di tari su ma dara méttee sax doon naa ah, su ma demee jënd sama doom bi subaa lan la ñuy léegi. léegi léegi léegi li ngeen expliqué. nga ne ma jamono jii fi ngeen nekk nii moom mooy fay ko léegi encore une fois jamono jii yow da nga yaakaar ne que en sécurité parce que jour mën na ñëw mu faat la wala mu forcer la pour tëdd ak yow parce que yaa ngi naan mu ngi bëgg tëdd ak yow mais loolu la ma wax dama ko wax sax ne ma bu ma la siifee nag kali mënatuma wax siifee mu ne ma woo ma ne wala nga rey ma wala ma rey mu ne man nañ reyante kali man du ma reykati nit du ma gëj sax nit sama doom sax sama koy yedd rek laa leen di yare waaye du ma leen tóor dama leen di woo réunion ñu toog ma yedd leen xamal leen ne leen gis ngeen sama situation ñu ne ma waaw ma ne leen góorgóorlu leen ngeen am jom bu ngeen góorgóorlu tuuti ngeen tekki wallaahi léegi léegi léegi moom moom dafa am beneen soxna wala amul soxna xamaluma ko dara xam xamaluma ko dara mais kër gi ñu nga xam ne man contrat bi man maa ko def nga xam ne daf ma jàpp otage ci moo koy fay dëgg la parce que bu demoon tey jii aw ma fay aw ma lu ko fay. léegi daal nga toog ci kër gi c'est parce que moom mooy fay kër gi. moom moo koy fay mais fay rek la yam tuddul njabootam sama doom ji barki dem bi ko fay ki dem lay soog a jàng kon xam nga ne kon situation bi muy dund. d' accord léegi ñu ngi jël yenn nit ñu yëg daal di wax léegi nga nekk di seetaan live bi après lu si mënti doon après dinañ jéem a jëlaat bu dee am nañu am nañuy léegi maa ngi kii nga nekk di naan ndox di dallu massa massa massa donc gaa yi yaakaar naa ne lii metti na man sama xol dafa fees daw na yaram te nee naa leen bu mu la affiché woon photo bi ngeen xool ko nga ne c'est pas vrai jigéen bu rafetee ni macha allah bu jongome wi nasàlla na la ko góor mën a toroxalee ni billaahi te boo gisee mu génn ñëw wax problème am mu yàgg ko dund c'est parce que sës na te balaa muy dem di naan aspirine di rey boppam mu def lii saxatane parce que ñu bari dañuy dund naqar ñu naan rus naa taxaw si réseau sociaux wax ko jël garab naan dee nga toogoon si réseau sociaux wax ko trouver si solution moo ko ëpp solo du dëgg li ko dal métti na ba fu métti yam te jigéen ñu bari ñu ngi dund lu mel noonu parce que expliquer na leen lan moo andi divorce bi mooy yàlla dafa doog moom ak jëkkëram ñuy sëy ba am nañ seeni doom ñeent doom kenn ki génn na àdduna yàlla yàlla yërëm jour mu accidenté mu gaañu ci lox ñuy woo ko jëkkër ji ne ko sa soxna dafa accidenté faalewu leen mu sofantal leen bañ ko fajee ba pare mu ñëw tëdd ci kër gi ak loxom bu ñu bàndaas jëkkër ji daal di dugg ci kër gi jékki-jékki commencé ko di ko raay dafa jongo ma nag macha allah dafa jongo ma nag yambar bu mu dajal bi tamit lenn rek la gis si moom xale bu jigéen bi jongo ma na nañoo faj soxlaam sànq sax loolu laa ko wax téléphone mu ne ma exactement téléphone noonu la demee tëddee ma rek la soxla sa jabar mu ngi gaañu ñu wax la ko defoo si dara ñu ñu bànd loxo bi taloo dara lu dul ñëw di ko kobos pour tëddeeg moom ak métit bu mu am loolu rek day wane ne ko góor boobu xol bi wow na kon xale bu jigéen bi daa ne waay yow ak ni ma gaañoo nii xanaa nga yërëm ma mu daal di koy saaga ndey moo ko wax bi mu ko saagee gis ngeen mu ne mu dem jël photo sëñ Fallou daal di dénk boppam sëñ Fallou ainsi de si la seen sëy tas mais ba seen sëy tasee ñu ngi dëkk si benn kër pendant six ans ku góor ki di ko naqaral di ko méttital ba kër gi nu nekkoon yàlla dogal ñooñu soxla kër gi ñu déménager bi ñu déménager nag xale bu góor bi fi ñu dëkk jamono ji mooy fay luwaas xale bu jigéen bi di tëdd si néeg bi xale bu góor bi di tëdd si saal bi ak seeni doom mais xale bu góor bi day jékki-jékki rek bu xale yi génnee wala leneen mu daal di jóge saal bi fekk xale bu jigéen si néeg bi di ko jéem a kobosu si lu ma jot a sax toog na greffage am teg ko noonu xale bu góor bi ñëw sànni greffage teg ko xale bu jigéen bi fël loxo bi ne ko man du ma sa soxna danoo tas fekk xolam métti na si xale bu góor bi parce que am na jigéen yu mu doon doon sax bu doon xolam méttiwul même bu ñu tasee mën na jékki-jékki saytaane dugg leen ñu def mais moom xolam moo métti si xale bu góor bi ndax lu mu dund si coon nangulu ko parce que gis na ni finalement xale bu góor bi lu mu ko bëggee rek mooy di ko tëddee te nag loolu taxuloon mu dugg ci moom dafa amee naqar xale bu góor bi daal di koy fël daal di dem yoonam jékki-jékki day ñëwaat ci kër gi bu ñëwaatee tamit ne ana xale yi mu ne ko xale yi génn nañ mu daal di dugg bu duggee jéem ko tëddee xale bu jigéen bi trianke la xam naa ni yàmbar la dajal mu ne ko du ci dal yéen a ko dégg.